waaw waaw ñoo bokk fi ñuy taxaw arbitre bi nee na kaay leen

Mame Balla gañe na pile bi toj na nen Mbaye Gouye Gui toj na nen ñu ngi noonu arbitre bi ngi wax ak ñaari mbëri mu ngi leen wax li règlement bi bañ ak li mu nangu ndaysaan asat ñaay nan ku ne xam na diggante nag ay dem ñu bokk dëkk Bawol yaay Ayda Mbodj moo génn àdduna ñu bëgg arbitre nga soufflé ñu def une minute de silence jagleel ko ko ko xam ne mooy waajuru Ayda Mbodj Ayda bisu bi yal na ko yàlla yaram na jégal noonu ci grand combat bi ndeysaan may leen ñu présenté ba une heure ci guddi leen ñibbi nan ayca mbay guy gi waaw waaw Bawol gépp jug yuuxu Medina gépp jug yuuxu Mambalaan ndeysaan arbitre bi ngi waajo ñu ngi wax li règlement bi ak li règlement bi bañ dox ci diggante Mbaye Gouy Gui ak Mame Balla ñoom ñaar a ngi noonu arbitre bi wax na ñoom ba pare Mbaye Gouy Gui reculé may na distance Mame arbitre bi nee na ko kaay benn avertissement pour Mbaye Gouy Gui daa lu mu sotti Mame Balla arbitre bi laaj na ay jugeem laaj na Mbaye Gouy Gui ay ca Mansour laaj na Mame Balla nee na pare na laaj na Mbaye Gouy Gui arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 4 stade Iba Mar Diop il est vingt heures vingt six minutes tey jii ci moo ñu woo. boole ñaari xale. mbay guy gi. ndaysaan moom bu écrir ba da jot ak Mame Balla ndaysaan bu Pikine wala bu Guédiawaye ñu ngi noonu Mame Balla moo leen woon ginnaaw moo def morso bu weex bi ci bopp mbay guy gi ngeen jàkkaar lool moo bari takkaay mbay guy gi tokkaas na Mame taxaw na. mbay ki ngay bëreel ndaanaan la ci lamb ki ngay bëreel champion la ci lamb l'expérience face à la jeunesse ñoom ñaar kan mooy daan mbay guy gi dañ koy corriger wala mbay guy gi day xuus jëm ca kaw ayta arbitre bi àtte na arbitre bi siflewaat na Mbaye Gouy Gui ngeen jàkkaar lool Mame Balla moo la woon ginnaaw cokkaas nañ drapeau Matar Bala ndaysaan le ministre des sports ndaysaan moom mi nga xamante ni lu ne def na ko ci sport rawatina lamb Matar Ba boobu la Assane Ndiaye ñi dal Baol production tuddee ba lamb ji stade bi fees na ñëpp nee nañ tekk géwal nag ngay dégg géwal rek kay way géwal rek kay tëgg ndaysaan dégg ngeen mbay guy gi maam Balla fu ñuy mujj ñoom ñaar arbitre bi nee bëre leen mbay guy gi concentré na maam daa bëgg a mu indi mu xeex mbay guy gi indi xeex mu ni bëre maam cokkaas na maam mbay guy gi mbay guy gi ci tànk jëm lu ma la wax takkal téere ci tànk jëm day cokkaas rek daw jëli loolu bëreem la Mame Balla daa mënee tànk Mbaye Gouye Gui tàkkaasaat na Mame Balla Mbaye Gouye Gui gis nga lu ma la waxoon jëli na ko Balla bañ na mbaru tànk la Mbaye Gouye Gui jàpp na sëkk na ci geñoo Mbaye Gouye Gui rogganteku na Mame Balla jàppul fenn Mbaye Gouye Gui bi jàpp na loxo ndijoor bi jàppul maama wala jàppul fenn ndeysaan ma nga ma nga góor jamais déet mbay guy gi nee naa la Pape Thialis war naa yokk mbëru tànk moom Mame Balla bi rafet na macha Allah mbay guy gi ngi tourné Mame daa téye loxo bi daa téye loxo mbay guy gi ndeysaan loxo beeg téere yi la boole ndeysaan dégg ngeen tëggkat yi mu ngi gën a baral tëgg bi w point lam spora point com ak mbay guy maral nañ dëgg lu mbay guy gi jàpp na ba ngay faxat maam Balla bañ na. mbay guy gi maam Balla ndenge ngeen ne bañ na. ñoom ñaar mbay guy gi maam Galla faxat na ko. mbay guy gi rëcc na. ndaysaan maam Balla mbay guy gi. maam Balla amul fu mu jàpp. mbaytul mbay. ki ngay bëreel ndaa naan la. maa ngi nuyu Zos. borom Brésil sama xarit yi. Babacar Espagne sama waa kenn du moom maam Cheikh Mbaye Séeri ndeysaan may nuyu Pape Gueye ndeysaan Séeri Aji Gueye Khadim Diop Séeri Ñanga ndeysaan sama xarit di bëgge bu baax gaa yaa noonu ñoom ñaar ndaysaan mbay guy gi ak Mame Balla ñu ngi noonu gesteri Fatick nga xamante ni lamb rek la bëgg boo demee ma nga ca Brésil di seetaan lamb ji fii ci wasaare lamb ñoom ñaar dinañ xeex mbay daa bëgg a dóor mbay guy gi Mame Balla mbay guy gi ngi dóor ci suuf Ndeysaan Bada Dione ngi noonu toog Mbaye Gouye Gui ngi dóor Mbaye Gouye Gui ngi dóor Mbaye Gouye Gui ngi dóor Mbaye Gouye Gui ngi dóor Mame Balla fayu na Mbaye Gouye ngi dóor téere yee la tee ci téere loxo la tee Mame Balla ak Mame Balla ci téere loxo yi la téye ndaysaan mbay guy gi ak Mame Balla noonu du yomb ñoom ñaar Mame sol na ko mbay moytul li ci làmb ji Mame Balla sol na mbay guy gi guy ak mbay guy gi maam Balla Mbaye Gouye Gui ndeysaan jàppante na ñoom ñaar dara xewagul ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi Mbaye Gouye Gui maam Balla deñ na ma xam du fekkee coono borom téere bopp maam bi deñ na ndaysaan ñu ngi noonu mbay guy gi galaaj yi dañoo bari da combat bi moo tax ci la Mame Balla mooy tey ci ba mu dëgër bëgg a def li mu bëgg a def dëkk na mais ndaysaan du yomb ñoom ñaar Mame Balla mbay guy gi ndaysaan ñu ngi noonu fu ñuy mujj ñoom ñaar mbay guy gi jàpp na ba mu dëgër la mbay guy gi day door waaw la jeunesse mbay guy gi sikki bu gëm boppam la mbay guy gi si Mame Balla ngay moytu waaw waaw dóor na Mame Balla ngay moytu ndeysaan kañ la tàqalikoo ñëwaat loxo bee jàpp loxo bee jàpp ko mu am xeex am bëre ci mikaay mbay guy gi kenn toogatul waaye ci mikaay Mame Balla kenn toogatul fay fële ca Brésil nag lay nuyu ñëpp a ngi taxaw di xool ñu ngi noonu doon nay doon nay. ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar. Lamba Garaaw. Mbay Guy gi Maam Mbay Guy gi Maam Mbay Guy gi daa bëgg a dóor. Maam Balla dafa bañ. mbokk yi combat baa ngi noonu cey promoteur da ngay jël ñaari xaal da ngay jël xaalis jox ñaari mbër ñu dem préparé wu nga def promotion ci wasaare lamb lamb ju réussir nga ñëw fii ci stade Jom Iba Mar yëngal ko ba mu yëngu soo paree dem tëdd lamba metti ndeysaan lamba metti na ci promoteur yi lamb metti na ci mbëri metti na sur la presse ndeysaan ñu ngi noonu maam Balla mbay guy gi jàppante bi yàgg na mbay guy gi dóor na maam Balla mbay guy gi maam Balla mbay guy gi ñaar ñu ngi noonu ba tey Mame Balla Mbaye Gouye Gui Mame Balla Mbaye Gouye Gui maanaam huit huit ñu ngi noonu ñoom ñaar Mame Balla Mbaye Gouye Babacar mi ngi ci stadium Iba Mar Diop cey Leewtoo TV lamb rek la leen di toppal arbitre bi àtte na Mbaye Gouye Gui ngi tekki gàllaaji gàllaaji dañ koy xatal arbitre bi siflé na waaw waaw Mbaye Gouye Gui Mame Balla Mbaye moo la féetee càmmoñ Mame Balla moo la ndi joor ndeysaan arbitre bi atte na woowaat leen ñoom ñaar ngi noonu ay guy gi Balla ndeysaan la jege si nañu Mame Balla cokkaas na gi Mame Balla waaw waaw Mame xeex ñoom ñaar lewaatoo. ndeysaan. mbay guy gi. mu ngi noonu. mu ngi na tekk di déglu. Mame Balla cokaas na Mame Balla guy gi day dem de. mbay guy gi door na. mbay guy gi day dem de arbitre. mbay guy gi door na. waaw waaw. arbitre. waaw waaw. ndeysaan. waaw waaw. arbitre sa gannaaw. mbay guy gi daa bëgg a xeex mbay guy gi mambal la. ci tànk ba la jëm. waaye mambal la mbëru tànk la. moytul cokkaas mambal laa ngi cokkaas mbay guy gee ngi cokkaas mambal la cokkaasaat na. daw na jëli tànk ba. du baax. mbay da lay gis mambal daa mën a bëre. mbërëntaan la. combat bi bu yàggee mbay guy gi la mambal la la mbay guy gi dugg na Mame Balla fi mu jàpp woon maay moom loxo bi mu gàll ci kaw guy gi Mame Balla du ko gàll ci kaw ndax gàll bi baaxul mbay guy gi Mame Balla woon maay moom loxo bi da koy dugal ci biir ngemb mbay guy Mame Balla jàppul mbay guy gi jàpp na mu ngi koy buux mbay guy gi mu ngi koy buux mu ngi koy buux mbay guy gi maam Balla. mbay guy gi naa jàpp ngoobu. day jàpp ngoobu kal na kal na. lay laaxee la laa mbay guy gi yëkkati na ko ba kaw. mbay guy gi guy. gi daan na maam Balla. mbay guy gi yanu na ko ba kaw dóor ci suuf. guy gi daan na ko. Adama Gaye.